voilà mbokki internetu Feeling Dakar ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen kontaane ba tamit mooy agression yi nga xamante ni dañ koy noté jamono ji yëpp yaa ngi récemment am na kuñ ci rey fi nga xamante ni mooy euh, géejawaay voilà dañu dugg nag maanaam sama cameraman Ali ñu xool réaction sénégalais Ali ñu def. waaw ah, loolu dëkk ba metti ba pare itam police yi dafa duñ seen liggéey parce que boo dikkee tey ñi nga xam ne defuñu dara. nga topp leen dina ramage ba nga leen sonal nga xam ne xam na ñoom defkat yi dañoo war a ñoom carrément dem téye ji leen defkat boo ko téye rek doo ko kenn ko def du dëgg mais ñi nga xam ne defuñu mën téye bàyyi defkat yi mooy loolu du dëgg defkat yi dañu war a dem wëri leen fa ñu nekk xam nañ fi ñu nekk ñu jël leen denc leen leen dencee kenn dootul def dara du dëgg wala réew mi day daal dox mais liggéey bi góor bu wóor yàlla boo yeewoo da war a xëy wuti loo am man tey maa ngi nii xëy nekk sama place di tatouage tey bu dee 2000 francs bu dee 4000 francs ma wàccaale ko du ma agressé kenn soxla ma yëfi jàmbur lu ma am doy na ma ma dem ñu bëgg teel ci sama ndey teel sama baay du gëm sama bopp waaw nit sa bopp wóolu sa bopp tamit waaw xam ne lii damaa war liggéey damaa war a am am ak suñu fàllu yàlla li mu yor da koy séddale du pour kenn du pour ñaar pour ñëpp la waaw boo demee rek yàlla lay jàppale bu baax a baax waaw. mais lan nga jàpp tamit ne mooy waral agression bu métti boobu. ah agression bu métti bi xam nga nu mu demee rek dëkk bu metti bi la rek. dëkk bu metti bi doo nga ko waral mais bu dëkk bi metti wutoon du am parce que tey am na ñoo xam ne jàng nañ ba seen kayit mënuñu liggéey ah ñii itam am na seen métier amuñu fu ñu liggéey loolu moo tax mu metti parce que tey boo gisee alalu jàmbur tey mu leer na mën nga ko jëli foo mën a jaar ba jëli ko du nga ko jëli dalay jaral nag waaw mais bu dee sama genre gi moom du leen ko jaral liggéey bu dee dërëm ñu wàccaale ko sax moom moom la ñu bëgg mais nit ñi lu baax ñuy bëgg lu bon parce que man jàpp naa ne agression bu koy def xam nga loolu neexut xëy liggéey am sa 2000 francs 1000 francs wàccaale ko nekk sa liberté nekk sa jàmm moo dàq lépp mais parce que nga nit ñu dugal la fële fee xam nga ne neexut ku fa dem xam na neexut ku fa xam na ne neexut dafa metti mais lan nga gis tamit comme solution. ah lan nga gis comme solution. ah comme solution man man solution bi ma ci gis moom doomu aadama boo xëyee même bu dee jaay ndox sax da nga ko war a dem defi bul xeeb mais booy taawun fii dañoo jaay taar gëmuñu yenn liggéey parce que man su ma neexoon tey maa ngi nii di tatouage ma naan non rus naa taxaw sama gel rob ma fi wala keneen ku ma xam rob ma fi mais damaa gëm sama bopp ma ñëw di tatouage mais ñoom jaay profité lan moo tax ñu raw ñu dañu jóge ba Guinée ñëw fii ñii ngi jaay banaana ñii ngi jaay ndox ñii ngi jaay ay soccu mais ñoom dañoo rëy Sénégal la ñoo rëy parce que tey boo boo xëyee ne su ma jaay seulement sama gel rob ma wala ma jaay ndox sama gel rob ma du ma am succès succès bi loolu du succès xam nga lan nga fexe liggéey am xaalis taxawal sax kër gu rafet xale boo bëgg da koy am du xool na nga doon jaay ndox de nan kii am na mën na ma teral day dugg ci far force mais boo bëggee taamu ay liggéey te yoroo ko day metti ci yow loolu moo tax mu metti mais est-ce que tamit ci part de responsabilité. bien sûr am na ci bu baax a baax a baax mais tey comme ni jeunes yi ne fii tey xam nga jeunes bëri nañ bëri goo xam ne tey mënoo dugg fenn en tant que président ñëpp kër gu na nga dugg fa ne am lii am lii loolu mënul nekk dañuy waxee même président moom loolu yow dem na ci loolu. nit ki nit ki ci boppam moo mën a jóg daani dooleem am lu ko yàlla may boo xëyee wuti yàlla da lay may mais te boo bëggee lépp jël lépp nga wékk ci président bi naan président président loolu président yoonam newu ci yow boo xëyee utal lu la may yàlla lim ne da koy séddale rek boo demee wuti da lay may mais boo bëggee jël lépp naan président président toog fee brada ba attaaya ba waxtaan ba nga ne président président lan la mën ci loolu te yow boo xëyee liggéey woo lan la la président mënal mënuloo dara da ngay xëy liggéey yaa ngi sa dem di liggéey yaa ngi jóg ñeneen ñeneen bu ñu defee noonu dañuy liggéey mais toog balaa ba kii ba lépp nga ne président. waaw agression bi moom lu ko waral tamit nag am na ñoo xamante ils sont un peu fainéants euh, parce que tey jii boo amee yàqim ne di nga liggéey di nga liggéey même booy jaay daqaar sax di nga liggéey na nga ci boole fula agression. xam naa ne ñu ko def seen mentalité ñooy agressé mais nag war ngaa garder sa dignité ba boo amut nga xam ne ne yow amoo waaye bul dem di kenn di ko dóor. tamit di nangu alalam lool yëfu fainéantisme la loolu man je ne suis pas totalement d' accord parce que agressé koo xamante ni yaa soo ko gis nga ne dama xiif dama ñàkk liggéey loolu du raison. tey ji boo demee ci dëkk àll yi am na liggéey yenn liggéey gaa amul ay liggéey extra extraordinaire yoo xamante ni tu peux gagner assez de sous là mais am na ay liggéey yoo xamante ni mën nga seetee fii ñu nekk ñun mën nga seetee ma maa ngi lay wax man journaliste la de formation. mais maa ngi ànd ak sama grand di ko jaayal ay maquillage ah su ma amul stage damay ñëw fii jaar ji jël fii ay bagage dem jaay agression c'est pas une région ñu koy def nag wax dëgg yàlla war nañ xoolaat seen comportement man je propose même au gouvernement pourquoi pas les jeunes dès que ñu am euh, kii jeunes yi dès que ñu am majeur pourquoi pas ñu dem defi armée parce que comme les euh, pays émergents ñu ngi koy defee ñoom seen jeunes yi dañuy jaar ci armée bi def fa deux ans boobaa dineen mën a am éducation boo xamante ni ay affaire agression dootuñ ko waxati ci société bi yaakaar naa. ren ñoom bu ñu la sax nangu li nga yore day yomb mais dañ lay agressé rey la doo ko jël li nga yore. ah loolu nag la question qui sa pose mooy ndax peine de mort dafa war a ñëw ci dëkk bi mais nag loolu yaakaar naa juriste yi ñoo ci gën a jekku pour addu ci voilà. ah loolu da war nañ see mën a jóg moom wax dëgg yàlla ndax ñi ñuy rey tamit ay doomu aadama lañ te rey moom. dafa war a dakk daal bu fekkonte ne ku rey ñu rey la rek dina yaakaar naa rey bi dina dakk waaye ñu lay tëj ay yu kenn xamut bàyyiwaat la après nga génnaat di defaat même kirim kirim bi daal war a lañ war a dakkal daal ndax doomu jaamur yi ñuy rey ay doomu jaamur lañ waaw loolu dafa ñaaw daal jël sa moroom rey ko loolu dafa ñaaw trop trop trop. mais lan nga jàpp tamit ne moo ko waral. ah agression yi moo ko waral ak ñàkk liggéey bi. ak ñi nga xamante ne gëmuñu seen bopp waa bëgg bëgg gis lu sa moroom am amoo ko moom moom moo waral loolu ngay sàcc di agressé di def naka sa dul noonu te loolu jaaduwul ne dangaa war a gëm sa bopp daan doole loolu mooy yoon nga bañ a def dara lu ñaaw. loolu tamit est gisoo ne jot na état mu jël ci ay mesures dafa jot état jël ci mesure dafa jot trop trop trop dafa jot dafa jot moom. ñu ci am ay victimes ñun ñëpp bari na torop. total moo am. lan nga jàpp insécurité boobu noonu moo koy waral. waaw insécurité bi de man pour man ci sama gis-gis damaa jàpp ni jeunes yi ñàkk liggéey bi moo tax chômage bi moo bari nit ñi xale yu góor yi dañ pause kat lañ mais am na ñoo xam ne dañ koo xeeb wax dëgg yàlla ñu ngi ciy gis suñu bopp. mais insécurité bi lu ci bari xale góor yi dañuy gens ndax boo gensee dangay ngay tàqalikook sa sago looloo tax nag wax dëgg yàlla ñàkk a liggéey nanguwuñ liggéey dañuy wër di agressé rek. léegi nga jàpp ne mooy solution bi. ah solution bi mooy ñu ñu wut ay emploi nguur gi moo war a tabax ay usine ak affaire yooyu noonu pour man dañoo war a tabax foo xamante ne nii dañ fay dañ fay recruter ay nit su ko defee xam nga boo bu fekkee da ngaa occupé wu ci dara. doo am temps wu dem agressé wala affaire yooyu noonu boo amee occupation rek yooyu du nekk sa xel mais bu fekkee liggéeyoo te bëgg nga dara da ngay dem nga sàcc c'est obligatoire. loolu mette nañu trop fu mu ne nii képp ko jooy loolu ngay jooy agression métti na trop trop trop trop barki boo njaay lan fi rey sama copain tali géej paaka te am na sama beneen copain bu ñu fa njëkkoon agressé mu réussir Pape Souna sama xarit la ñu ànd ko dégg bëccëg mu réussir tey kii rey nañ ko fi te man damaa jàpp kon Pape Souna noonu la ko noonu reyee mais rey bi carrément rey mel ni comme genre dama bitig ba jënd fa tàngal bi singom juróom yëy ku rey rek génn ngi dàqale benn un an nga génn loolu ba kañ est que du ku rey ñu rey la ndax ñu man a changer ku rey ñu rey la ku ku juum ba rey nit ñu ñu juum ba rey la loolu gën tën a sik ñu téye doomu aadama di rey di dem rek rey bi ba kañ mel ni suñu dëkk bi amul état or que dafa ni sax ñun ñu war a aar ñoo ñu mujj di ñuy toroxal nañ dimbale wala moto yi tamit wala moto yi sonn nañ ci dëkk bi man maay taxale am sama benn 300000 jëndee ko moto pour dem di liggéey di ñëw mais damay mujjee sonn si moto boobu ma jënd borom kër bu ndaw yor moto boo ko reyul yaa ngi koy jàpp si tali bi di enquête si 3 bi la métti na trop man wax ci loolu. rek parce que sonn nañ trop jigéen ñi ñu leen di rey ëpp na góor ñi ñu leen di rey ëpp na sonn nañ daal war nañ ñoo mën a dimbali képp nañ suñ prix yi amatuñ dara dañuy jënd suñu xaay dajale nat yaa ma gën a xam dajale suñuy natt sonn bay bëgg a jënd suñuy pirig suñu rombee ñu këf bu ñu takkee suñuy or ñu ray ñu ci erreur métti na torop daal ña dëkk bi daal ñàkk na sécurité torop torop torop nañ ñu dimbali surtout loolu. insécurité boobu lan nga jàpp ne moo ko war a saafara. ah xanaa Macky Sall. réew mi ku ray ñu ray la wala ku ray ñu ray la wala Macky Sall yokk sécurité bi rek. indi militaire yi ci dëkk bi voilà. ndaw yi bu ñu amoon liggéey ndaw bu ñu liggéey est loolu du wàññeeku. Ah, bu amoon liggéey moom loolu day wàññeeku. waaw bu ci jàpp surtout nag surtout loolu nag ndax am na ñoo xam ne dañuy xëy di tëdd amuñu ci luñ jàpp buñ bëggee café wala ñu bëgg mburu dañuy dem di agressé yaa ma gën a xam amuñu liggéey affaire yi metti na trop surtout ñu jàpp ci loolu loolu am na solo trop liggéey bi ndaw yi am liggéey ñu liggéey loolu tamit daal. del déglu del